nee muy sunu mbokk jànkoon xasida yi. waaw nu ñaan leen nag macha allah may leen waaw nee lii nee dinaa dunaa du sens nee mérite la nee bi ma agsee léegi nee ko sama ndey nee tee témoin du temps nee yàlla gën a yàgg nee rakkam jee Astou Mbaye dëgg la waay Alaaji Mansour Mbaye dematul fenn laa fekk ko dëgg la de te bu Alsaan ñëwee ci moom bu delloo mu teral ñëpp. dëgg la fukki fan bu jëlee Alsaan Alaaji Mansour Mbaye ne yàlla yàlla guddal sa fan te man nag da nga yow may moom ba ki ñëw nga jóge loo war ca màggal peex. nee muy sunu mbokk jànkoon xasida yi. waaw leen nag macha allah may leen gàncax.